salaamaaleykum dal leen ak jàmm encore ci Télé Sénégal euh, li gën a fës ci information yi léegi léegi lañ ko jot moo di Barthélemy Diaz dañ ko jàpp fi nga xamante ne moo di police jëppal euh, ginnaaw bañ ko jàppee fi nga xamante ne moo di police jëppal ñoo ngi ko jàppee diggante école Sacré Cœur mooy fi nga xamante ne fa la travaux yi euh, BRT bi ne foofu lañ ko jàppee parce que da doon def promo di distribuer ay flyers yi nga xamante ne moo jëm si investiture bam prévu bi nga xam ne mooy samedi samedi bii nii léegi nag Barthélemy dañ ko jàpp transféré ko escorté ko ak force de l'ordre bi euh, fi nga xamante ne moom moo di caserne euh, mooy camp Abdou Diassé fa lañ koy yóbbu moment bii ñuy wax ak yéen euh, avant ñi nga xamante dañ koy yóbbu amoon na foule bu doy foule bu bëree bëri bi nga xamante ne moo nekkoon buntu police jëppal dañu policiers yi dañoo taal lacrymogène mujj leen a dàq ñu jóge foofu dem. fu mu toll nii Barthélemy dañ ko transféré bi nga xamante ne moom moo di commissariat central. yóbbu ko camp Abdou Diassé encore boole ko foofu ba léegi Barthélemy kenn xamul si lu mu ne euh, fu mu toon nii destination bi mooy foo xamante ne kenn xamu ko mooy destination inconnue selon ses proches Selon aussi les informations de la Libération Online, Barthélémy Diaz a été initialement conduit au commissariat central de Dakar avant que la convocation ne prenne le chemin du camp Abdou Diassé. À noter que aussi la police a usé de grenades lacrymogènes devant le commissariat de Dieuppeul où les partisans de Barthélémy Diaz s'opposaient à son transfert. Ginnaaw euh, loolu amul beneen information dañuy déglu xaar suñu naataango yi wala ñu xool euh, li nga xamante ne mooy euh, li gën a fës ñu jëm a li nga xamante ne Abdou jaase mais xam naa ne duñ ko permettre ndax fu mu toll nii ñëpp dañoo ñoom ñëpp dañoo gànnaayu di xaar li nga xamante ne mooy euh, sénégalais yi jug rek euh, ba ñu dal seen kaw.